asalaamaaleykum internet yu suivre Leewtoo TV lundi 20 juillet ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci yéen kaay comme ni ko Leewtoo annoncé woon samedi ki nga xam ne ni mooy Pape Thialis Faye di patron Leewtoo production daal di taxawal li nga xam ne mooy combat Tafatine ak Boy Niang 2 démb ci dimanche bi nag moom lañ doon amal li nga xam ne ni mooy présentation affiche bi fii ci locaux Leewtoo TV Leewtoo daal si ñëw nag andil ñu ñaari mbëri ci forme bu mag bi ñuy respirer te ginnaaw dara xewagul ñoom nag ñu andi seen eh, ay kàddu ku nekk di tëkk sa morom di annoncer li nga xam ne combat bu mag la nar a doon incha su sunu lamb ba tey daal di ñëw ci boobu combat ba tey ak retour Pape Thiaris Faye li nga xamal ni ginnaaw bi nga xam ne ni moo nekkoon patron wu lamb ji saison 2017 2018 Thialis daal dina ñëwaat tey signé li nga xam ne ni mooy kambagam andi affiche bu mag diggante Tapha ak ki nga xam ne ni mooy Boy Niang 2 sunu làmb nag daal koy tuddee le choc des titans en vue mu nekk benn combat bu mag bi opposé ñaari mbër yoo xam ne nag am na lu ñu wone ci làmb ñu war a bëre saison bii di ñëw ba tey ki nga xam ne ni mooy euh, record ñëw na tam ci boobu affiche Euh, diggante tafaatin ak euh, Boy Niang 2 moom tamit euh, nee na Tafatine mi ngi dëkku Boy Niang waaye Boy Niang moom it mi ngi doxal te xaar yoonam di xaar bés bi daal di gën a jege si ki nga xam ne tamit mooy sunu làmb ak fële ca ñoom itam ñëw nañ ci Garga Mbossé ak Sa Thiès muy beneen affiche boo xam ne nii Leewtoo production décroché na ko démb daal di koy jox li nga xam ne ñooy amateurs yi bëgg lamb mu nekk tam affiche boo xam ne nii ñaa ngi koy xaar xam naa ci fan yu néew Leewtoo dina leen annoncé présentation tamit ñaari combat yooyu noonu ñu dem euh, ci sunu lamb ba tey ak euh, guy gi guy gi nga xam ne boobu ba léegi euh, Sénégal entertainment ñu ngi koy topp ci ko tëgg pour garga pour rëg moom nag nee na boo li nga xam ne ni moom lañ ko proposé comme cachet nekkul lu ko dey vingt cinq millions yi dal na si xëpp suuf daal di arrêté arrêté sax li nga xam ne ni mooy négociation yi parce que am na yeneen ñaari promoteurs yi bëgg combat am ak ak rëg-rëg ñu dem ba tey ci Euh, sunu lamb mu ñëw ak ñun ci Matar Ba Matar Ba nag euh, ñu invité woon ko fële ca grand jury moom nag ñëw na ci li nga xam ne nii mooy euh, lamb ji ak yenn point yu bëri yi nga xam ne ñu ngi ko ciy xaar lu mel ni départu Alioune Sarr boo demee ca record record tam di nga xaman ni Euh, kii di ministre bi nag wax na ci départ Alioune Sarr mais ba tey li waxu ci lu leer dafa flou waxu ci li nga xam ne ni mun nañ ci jàpp daal ba tey di mu ñuy xamal ci record bi que saison bi comme mi ngi jeex dans 10 jours CNG bouclé na daanaka li nga xam ne mooy rapport deux 2019 2020 ñu dellu ca sunu lamb fekk fa ki nga xam ne ni mooy Valdo Valdo nag di dëkk ki nga xam ne mooy Yékini Junior Modou Anta wala Amaneex nee na nag su fekkee ñooñu ñeme nañ nañ ko jël ñu daal di bëre leewtoo point net fekk fa Koumba Fall mu ngi xamal ni nag ñaari mbër mbëri tamit ñi nga xam ne mooy Tapha ak Boy Niang seen face à démb bi nekkoon na face à face bu xumbute ñu demaat leewtoo point net fekk fa Ndeykumba Fall mu ñuy xamal ni nag Tapha na moom ma ngay dànkaaf ki nga xam ne nii mooy Boy Niang nee na ko nag soo xeexee ma daan soo bëree ma daan la kii di Boy Niang nag nee na ko bu jour ba di nga gis xeex waaye tamit di nga gis lamb ñu jeexal foofu li nga xam ne nii mooy revue de bi duñ fa jógee nag te jaalewu ki nga xam ne nii mooy euh, Babacar Babacar daal di ñàkk ki nga xam ne nii mooy frère am ñu bokk benn baay ñu koy wax euh, Sigi Ndigaale di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu juge yàlla xare ko àjjana yi gën a kaw mi si salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen si ziar di leen jaajëfal di leen xam ne namoon nañ leen trop ginnaaw nga xam ne weekend bi jàll na guddoon na trop mais nag disoon na en événement ci loolu nag dañuy ñëw ginnaaw bi leen defalee revue de ba pare ñu daal di def ak lii li nga xam ne mooy jàngat bi ma asi ànd ak tey ki nga xam ne mooy sama mag Ndeye Coumba Fall Ndeye Coumba nuyu naa la maa ngi lay fay ma dem ñaam nekk moo ñu dem ci li nga xam ne ni moo gën a fës euh, ci weekend bi sax laay wax parce que euh, euh, comme samedi Leewtoo ni mu ko annoncé Pape Thialis décroché na li nga xam ne mooy tafaatin Tine Boy waa Aïcha Faye madame ñaa xanaa balaa ñu commencé rek nu jaale ki nga xam ni mooy suñu frère nu lool muy Babacar ma tàmm ñuy euh, maag yow ni def ak moom revue de kii bi jàngatu arène bi di ko jaale frère am boobu nga xam ni moo génn àdduna si week bi te mi ngi ni nga ko denc fi nga xam ne mooy Touba di ko jaal euh, Babacar di ko jaal waa waa waa ak yaay yëpp naan ko yàlla na suufu Touba bi rek euh, woyof si si kawam Aïcha Faye waaw ba léegi mbokk comme ni nga ko waxee dañuy jaale Babacar Leewtoo TV Leewtoo production groupe Leewtoo bi yëpp parce que ñun ñoo leen euh, teewal ci revue bi ñu ngi ñu jaaxle Babacar nga xam ne mooy euh, frère am bi décédé démb di ko ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam yàlla ko euh, daal di koy xare ci àjjana yi gën a kawe mi Firdawsi Ndeye Comba waaw xanaa nag ñëw na si actualité bi actualité bi nag weekend bi na trop ndax déjà rek retour Pape Thialis Faye rek actualité la nag mu teg si nag ay ñaari yu neex a neex diggante ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moom mooy Boy Boy Niang comme ni ko Leewtoo yu la wax ni que combat bi carrément Leewtoo moo ko moom moo leen moom moo leen euh, moom lañ def sous contrat ak ak ak Leewtoo mhm. donc ñëw euh, bi ñaari mbër yi wax nañu Pape Sall Faye wax na aussi objectif yi nga xam moom la fas yéene def ginnaaw mu toogee presque deux deux saisons ñëwul yan objectif la am pour saison en venir loolu yëpp wax nañ ko si si yi nga xam ni mooy euh, sunu lamb euh, Leewtoo TV Leewtoo point net ak li nga xam ne moom mooy record Aïcha mhm, ba ci L'Obs ak euh, les Échos journaux yu bëri tey nekkumba ñëw nañ ci mais ñaari mbëri nag mën nañ ne est que nekkuñu di annoncé li nga xam ne ni mooy couleur yi parce que démb tafaatin gis nañ ko nee na Boy Niang soo xeexee ma daan la soo bëree ma daan la mais Boy Niang tam nee na ko di nga gis xeex di gis bëre ah. Euh, Aïcha Faye Tapha Tine moom lan moo tax euh, lan moo tax adversaire wutaloon ko adversaire metti euh, parce que comme li ñu wax rek takk si moom moom la takk rib combat am day metti day tànk na xam ne mooy Bombardier adversaire yu bëree bëree bëgguñu woon bëree ak moom parce que xëy na loxo yi macha allah jot na am na am na taxawaay bi am na taxawaay yu mbër moo tax wutaloon ko adversaire metti na te moom sax nee na ko soo bëree dinaal daan soo soo xeexee tamit dinaal daan xam naa Tapha moom xeex bi moom lay gën a privilégié ñu ñëw nag si Boy Niang Boy Niang nee na moom combat bi moo ko jëlal boppam donc xëy na am na lu mu lu mu gis si tafaatin loo xam ñun gisuñu ko ba mu ñemee ko lool voilà ba mu ñemee ko noonu man waan an ko daal ñeme na koo xam daal ñëpp ko fi bàyyi te moom nag def naa ni loolu daal lu ñu wax rek lu ñu yónni yàgg waxam waaw li si kanam uh, raw li gët Ndeye Coumba ndax uh, li des bëri na mais nañ ko ci uh, daal di jàppandi ci loolu rek beneen affiche ñëw na tamit boo demee suñu lam fekk fa dem leewtoo point net fekk ko fa dem record dem feneen ak feneen fekk fa muy Sa Thiès Garga Mbossé waaw Sa Thiès Garga Mbossé combat boobu sax soo seetee ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 mus na ko wax si ay interview mu doon joxe ay affiche am nee na affiche daal yu gën a neex mooy nga euh, mooy euh, Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom mooy euh, Tapha Tine ak aussi Sa ak ki nga xam ne moom mooy Garga 2 donc affiche yooyu Garga Garga Mbossé affiche yooyu la Balla Gaye gisoon te tey nag ki nga xam ne mooy Pape Thialis Faye ku retour indi na tamit ñaari combat ñaari ñaari mbër yoo xam ni fan def naa dañoo xiifante woon lu bëre bay komba bu neex lay doon mu nekk derby diggante parcelle ak ki nga xam ne moom mooy Euh, géejawaay comme ni ko sunu lamb waxee. sunu lamb ñëw ak ñun euh, ci combat guy gi ak euh, rëg-rëg boobu ba léegi ñu di ko xaar ndegum ba mu daal li ñuy xamal ni nag kii di guy gi daal dina arrêté négociation yi ak waa groupe Futur Média daal di rejeté carrément li ñu ko posé proposé parce que jàpp na ne cinq millions dafa tuuti. xam nga man déggoon daf naa Ablaye Wade président Ablaye Wade moo doon wax wala Macky moo doon wax naan. pataas sama gën a pomme de terre. ku ci tëj sa avocat moo baaxul am na <laughs> am na am na droit tamit laaj euh, cachet boo xam ne moo ko neex mais tamit comme su fekkee ni comme lu suñu lam wax rek nee na pour 25 millions lañ ko proposé c' est tout à fait normal mu bañ d'accord si loolu parce que tamit mënoo jógee sa dernier combat nga nu fay la 35 millions nga jógee si victoire ak Siteu nga ñëw bu wàcc ba euh, ba 25 millions jógee si victoire ak combat boobu enjeu yi nu mu méttee woon ñëw nag nu wàcc sa cachet cachet bi xaajagul sax maanaam dinañ sa presque 15 millions sa cachet bi initial bi nga amoon bi ngay mujjee bëre loolu tamit foog naa ni dañu ñaan nekk waa GFM euh, que combat boo xam ne neex na amateur yi bu bëree bu baax a baax mais dafa mel ni Ndeye Comba am na concurrence ci biir parce que nee na ñaari yeneen ñaari promoteur ñi ngi ci tey bëgg nañ combat ki nga xam ne ni mooy Reug Reug ak ah, Aïcha Faye mi ngi mel ni comme marché bi rek jën ak jaala rek su comme li ñu war a su buur bañee lambaay ndangu xëy am na yeneen promoteur yoo xam ne gis nañ ko euh, gis nañ ko bëgg nañ ko mbaam ak Reug Reug xëy tamit su ko proposé tamit lu ëpp lu ko GFM proposé c'est tout à fait normal mu delloo avance boobu noonu donc nañu xaar ba xam xëy nag fii ay fan yu néew daañu gis combat ak guy gi mu taxaw soit guy gi Reug Reug wala boo guy gi ak keneen mm-hmm. dañuy dem euh, record ak euh, ba tey sunu lamb ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñoo ñëw ci information boobu mu le ministre Matar Ba ñëw na tamit ci départu Alioune Sarr mais tamit foofu boo demee record daf ñuy xamal ni foofu ministre bi daf ciy flou ba tey parce que waxu ci lu leer. waa ministre bi nag moom moo nekkoon invité RFM euh, grand jury ci RFM weekend euh, mhm. démb ci mooy si dimanche donc tey dañoo xëy journaux yi reprendre ko comme li wax rek autorité la te autorité yi moom suñu ko invité di si mën a am information yu bëree bëri mhm. comme li wax rek euh, comme li ministre moom des dafay versatile parce que amoon invité woon nañ ko si même émission boobu noonu Babacar Fall moo ko invité woon mu waxoon mu ne Alioune doit partir avec les honneurs kon ñu ngi doon xaar ni xëy dina annoncé ban jour boog moom Euh, c'est pas euh, de départ Aliou Sarr n'est pas à l'ordre du jour donc dañu xaar daal ministre daal moom moo yor coggal guyam comme li ñuy wax rek donc la dernier mot moom moo ñuy annoncé kañ la Aliou Sarr di dem wala bokk nagam daf koy waxaat mu toogaat encore. parce que boo demee ndekku ma ci sunu lamb ministre bi mu ngi naan euh, la décision qui revient à l'autorité sera prise mooy autorité bi moo war a jël décision. te bu si tolloo dana jël ay décision waaw c'est tout à fait normal mm-hmm. tegee moom moo am prérogative. teggi ko donc nañu xaar rek comme li ñu wax rek juillet bi des na fenn saison bi le 31 juillet lay jeex na ba su fenn saison bi su jeexee ministre dina génne wax Alioune Sarr nagam da koy reconduire wala boot naan ko jaajëf sa liggéey rafet nag après il va sortir par la grande porte. léegi ma dañuy ak euh, Valdo Valdo moom ñëw ci sunu lamb ji lancé li nga xam ne ay ay la mu ne dafa bëgg ki nga xam ne mooy Yékini Junior ama neex wala Modou Anta. waaw xam nga comme lu ñu wax rek xam nga saison bi moom tëj na ubbeegul mais euh, mëri ñoom ku nekk ni ngi wane ni ngi wane maanaam daal ni ngi ni ngi génn di wax di xam ne di défier c'est tout à fait normal aussi parce que tamit dañuy toog ay saison yu bëri bëri woon ku si ni comme Valdo je pense bien que saison blanche la jóge donc c'est tout à fait normal mu mu défier mbër yu ko neex léegi nag reste à voir nag si Yékini Junior dina ko jël dañuy xool ba xam waaw mais nekk saison prochaine ça s'annonce euh, très bien parce que fu mu toll nii nag lamb bi jax na gis nañ euh, GFM mi ngi négocier Gaston mi ngi ñëw ak ay combat caay signé retour am euh, dafa mel ni promoteurs yi corona bi def fi jaar ñoom instant bi yëngal leen ñiy xaar retour activité yi waaw société bi si biir tamit xam nga làmb ji daaw ñu bëre ténor yu bëree bëriwul xeen tamit ñoom noo am mbëri noo dem ba xool def prise de conscience ñu ne ñoom fu yu bëri yu ñu doon laaj dem nañu ba xam ne que ñoom loolu su ko continuer duñu bëre ñu def prise de conscience ñu nag xaar nu jéem wàññitu soo xoolee euh, wala boog même su fekkee ne promoteur waxu na ko sax c' est que am na ay euh, cachet yu bëri xëy eggul 100 millions su ko eggee rek mooy sponsor yi xëy na ñoo si seen loxo xëy tamit mbëri tamit dem nañu ba si biir ne li suñ ko continuer nañu raisonnable daal day métti si ñoom donc il est préférable wàccee seen bëgg-bëgg ba mun a waxanteeg euh, promoteur yi moo tax xëy na promoteur yi am sañ-sañ mun a ñëwaat. 50 bu teew moo gën 100 bu ñëwagul. a ah, gis nga. <laughs> yéen euh, ñi suivre Leewtoo TV ci loolu lañ leen di tàggoo di béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla wàccee jàmm ci Sénégal euh, li ko wër ci àdduna lépp di jaalewaat ba tey Babacar di ko masaw bu baax ci li nga xam ne ni moo dal ci kawam parce que yéen da ngeen koy laaj mais loolu tax tey seen xarit teewu fi xam naa fan yi dina xaw du ngeen ko gaaw a gis mais dina ñëwaat incha allah ñu koy ñaanal jàmm fa mu nekk di ko ñaanal ñëpp waaw xanaa rek ñuy wax mokk internet nañ ñu dañuy comprendre parce que li si Babacar macha allah ak si baat bi du si baat Aja Faye bi nga xam ne baat bu sew la yore baatu jigéen la yor <laughs> donc si kàddu yoon leen tàggoo di jox dig dajee suba incha allah mais balaa boobu ma nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astandine chéri Khadija chéri Khadija Diallo DG Brahma nuyu ki nga xam ni moom mooy Khoudia Seck chéri As Seck depuis Italie ni nga xam ni mooy Abdou Gueye euh, talibé euh, taalibe Diamaguène eh, wala Baye Fall Diamaguène papa yi Siteu aussi maa ngi koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñëpp noonu ñuy suivre di nuyu aussi yàgg suñu cameraman bi nga xam ne teg nañu pression célibataire sonal nañu <laughs> vraiment vraiment ñun daal sonal nañu yàgg daal war na gaaw am jabar comme ça nit ñu noppalu tuuti bu suba incha allah